Daru Bahum eh, TV Daru Bahum TV rabbi an yahduruni ma jug man te fas yéene liggéeyal Serigne Touba majjul man te fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuuba ko xam yàlla gëm yónneen liggéeyal Sëriñ Tuuba anta rahimu samadu rahman ونحن في كنفه المني من كل شر وأذى سنيع مستمسكين بالخياس أحمدا خير الأنام منتهى ومبتدا من خالها في زمن الوباء أمنه الله من البلاء إذا كتبت تزهر الباخي وسبحت ملائك التباخي لسان ذكري وشكري رافقا للعرش والكرسي نورا وافخا لبي منور بنور الوحي وخاد لي خير علوم المحيي النغو هو العرود والعرود بيان لي صلبت ولي بيان النغو والأرود والبيان لي صلبت ولي بيان هرب من كتابة مدغور وبحروفي تتغنى الغور الله خلي أبدا ولا حبي ولا إله إلا الله الله خلي أبدا ولا هبي ولا إله إلا الله لو خدابي من رئيس الحرم لخاتم الحرم عند حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأخر يا باتنا ليس له كفؤا أحد هب لي بحق قل هو لا أخر هبات فرد خير مخن منتقد هب لي بحقي قل هو لا وأخر هبات فرد خير مخن منتقد ملت مولد النبي من أساس كتابتي وخادني من جمسسي ملت مولد النبي من أساس كتابتي وغادني من جمسسي يقود لي ما لا يكون لبصر مولد أفضل البرايا من بصر من يوم عاشوراء خط خلمي إلى النبي والرسول العالمي واجهت خطي اليوم عرفه من يوم أزور أباب المعرفة سألت ربي بجاه المنتقى وبهما خبل فلاخا وتقى سألت ربي بجاه المنتقى وبهما خبل فلاخا وتقى سألت ربي بجاه المنتقى وبهما قبل فلا حلوة غا يسر للخدير كل خزنا وسانني عندي كل سنة نفى إلهي بخدر ذاتي لغير ذاتي در حزب ذاتي حزب ذات الله من غير الدار وجاد الإله ببسر ما غدا نويت سكر الله ملء الأرض مع سماء خير سكور يردي سكرني ذو الأردين وسمي شكرا لدى أخياره خر سماء سكرني ذو الأردين وسمائي شكرا لدى أخياري خر سما سكرني ذو الأردين والسماء شكرا لدى أغياره قر رسما ينقاد للعرس والكرسي خط يدي ما سما مخفي نويت شكر الله ملء الأرض ما سما خير شكور يردي سكرني ذو الأردين والسماء شكرا لدى أخياري خرسما نويت شكرا مالكي من جمسسي وليقاد فضله من خسسي نويت شكرا مالكي من جمسسي وليقاد فضله من أسسي نويت شكرا مالكي من جمسسي وليقاد فضله من أسسي إليك يا خير البرية سلام خطيبك الذي كفيته الملام سلا عليك أبدا ما سلام في الآل والأصحاب ربنا ظلام وغس مقاما دونه كل مقام يا نور كل حامد سام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من خباك بالكلام بدرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام بذرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والغمام بك انقياد صالحين بزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أثناء لك لدى رب الورى المرام لقد به يا سيدي أصنع درام جاد لنا تعالى المنام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكرا عليك بخلام وخيرها يا ذا جوابه الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خائدا لي من إلهك المرام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خائدا لي من إلهك المرام تبت لربي زائرا بس النظام لك وخبره خبوته بحسام بسم الله الذي قرآن خنزل من ابتداء وأرجو إن دون سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم القرآن قداو جلاي من كان لله كان الله جل له ومن توصل بالماهي له خبلا الله صلي بتسليم بلا قدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء لله خطك أيضا وهو يغفر لي ذنبي ويسر عيبي بالذي فدلا لو خطابي وتاتي بدو دنيا وأخرى ولا أخي به بدلا هبلي مرامي يا وهاب دون ولن وتفيني برسول الله كل بلايا هبلي مرامي يا وهاب دون ولن وتفيني برسول الله كل بلايا هبلي مرامي يا وهاب دون ولن وتكفيني برسول الله كل بلاء يا قادر يا رحمن إياك أسأل يا رحمن كوني في دنياي عبدا قديما قد خواني خلا لجب علم وسعي لازم أدبا ولتكفيني نقدا ربي وصلي إلى لا رل البرايا وشغلي ما أساء أبدا من خير مكر خفي وكفني خجلا حطني اني صري واجلب لي الخيار مغن ولتكفني الخزيا والأقدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون بي كالبخر جودا وفيدا وكفني كسلا اجعل جميع الذي يكون لي أبدا عونا هلا في ما لقدرت عملا نزغ جنابي الادنى الأدناس جملة ولتكفيني كل شيء يجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمتي يوم القيامة بصرى حقق الأمل لحب جاي رسول الله لحب جاي رسول الله لحب جاي رسول الله ويل من يكسف سللا رجوت ألحاف ما قد سافه أرم إلى زبير بمدح خير من بزلا خمتك اليوم يا من فلت هو النبي ولده والغليل وهو قبيل ويكسر الخليل تسليم آخر لا يزال سمدا على النبي ورسول أحمد تسليم آخر ngir la mu saf moo dàq lem man lott naa ci lim jëfam man sant naa Cheikh Modou Ba jagle gu rëy nga woon fa moo xaju ko woon ay dëkkandoo bokk ki doom ñooy yem fi moo bu wér a wér Cheikh Modou Ba lam daa digal ay daanu bee la daa digal ay dëkkandoo la daa digal sax bépp doo ngir ñu ci moom di am lu baax daa jëf lu baax ba am ngërëm daa sax ci mun ba am ngërëm naqar la daa ra gerteram daa sax ci muñ Cheikh Modou Ba daa jëf lu baax am ngërëm daa sax la daa rot gerteram jaaraama say bu Modou Ba kii mës xëy fàtte ñañam kii mës xëy xatal gu jëm lu ñëw mu koog ñañam tab la bu wér Cheikh Modou Ba kii mës ta xëy fàtte ñañam buy xëy di jël téléphone di woo di laaj aw yaramam yëg la amoon Cheikh Moussa Ba doon daan bu muy yëg tawatam buy xëy di jël téléphone di woo di laaj aw yaramam yëg la amoon Cheikh Moussa Ba jëmmu la woon ju ñëpp xam ci bëgg nit akub yaram fi de la boole am. am fulla lool Cheikh Modou Ba jëmm la woon ñu ñëpp xam ci bëgg nit ak yaram fital woyat la boole am am fulla lool Cheikh Modou Ba moo tee ma kañ ko wax mbiram ba ñëpp xam ko roy jëfam ñun bëgg am kër gun fa sun borom nga xam Cheikh moo lu baax moom jëf lu baax moo doon mbiram moom wax lu baax moo doon mbiram daaru salaam ñëpp a gërëm jëfam yi sayxu moo lu baax moom yar na waa këram moom yiir na aar na waa këram jëfam yi mat na xëy na dem feeñ na bàyyi ba faasa baax moom yar na yor na waa këram moom yiir na aar na waa këram jëfam yi mat na xëy na dem feeñ na bàyyi ba faasa baax ku jox la cër aw askanam ku jox la cër ay dëkkandoo moo tax demam gi gis ñoñam ñëpp ko jëli Cheikh Modou Ba diiru dundam ci ak ayam ci Moustapha Fande biir këram dundal na wuuf na ay rakam ba xëy na dem Cheikh Moodu Bara lu mas a tay ci ak dundam jébbal na ko ak sëriñam ndigal lu jug kër sëriñam mu roy ja say xo faasa baax daaru salaam xam na jëfam day taalibe ci say xo am Cheikh Amidou may na ko dox soxna bu fee nga daaru baax lu mas a tay ci ak dundam jébbal na ko ak sëriñam ndigal lu jug kër sëriñam gërëm di am gërëm lu moo tax ma koy dagaan gërëm njëkk bi say xabaar sa baax doomi gërëm ju am gërëm lu moo tax ma koy dagaan gërëm njëkk bi say xabaar sa baax Daaru Salaam xam nañ defam day taalibe ci say xabaar Cheikh Abidou may na ko ibnu Ubayda daaru maar desi dinaa di fett way ngir bàgg waaju baax di way ñëpp a xam ci jëf ju rëy déglu ma tey ma wax jëfam du góor di nit ngir ñàkk a yor du benn nit ngir la mu yor day jàpp ngir allahu ñëpp ko naw ci ab dundam ku yàlla buur bi jox ngërëm la moom bu ci ay ñañam daaru salaam ñëpp a ngërëm jëmmam ji say umulu ñaanal ay taalibe ñoo ko ci gis muy wut baax la moom du am yite du jiw du war du xaste du dam du du yoote lu baax la daa digal ñañam daañu ko gis ci ab dundam ñëpp nangu ab tëram mësul juyoo ki wëy gërëm ku soxla woon ci wut gërëm mu doy na làq waay sa barke doy na wéer waay waaju la am du jaxle waay doy nga nu fépp yaa di maam doy nga nu maam te yaa di baay doy nga nu baay te yaa di yaay yaa man ci nun maam ak di jaay jaaraama say wu mu du baam yow bu du sóoru maa ko tiit lamp du nit la weer di nit waxatu maa la jant nit jaaraama say wu mu du baam ay ku du sóoru maa ko tiit lamp du nit la weer di nit waxatu maa la jant nit jaaraama say wu mu أحب الوصول مع قوته لابد نيت لويرني وخند ما لجنته جاء ما سيخمود با باتين بري بام يرمون ما ورلن سباتي كون كو جاخ لا نيو جوخ لا ñaan dugat ni سيخمود با يلا ko fal fadi wa waje ko na ci zaman muy fekk di fal kuy sàkku ñaan mu faj sa mbir Cheikh Modou Ba jaarama Seyxul Abdullah taxaw def ko jihaar sant la war na bu wér di ñëw yaay doon Seexu Moodu Ba jaaraama Seex Abdul Ahad yoon wi nga aw def ko jihaar yàlla bu Rabbul Ahad teral bu wér Seex Abdul Ahad jaaraama Seex Abdul Ahad yoon wi nga aw def ko jihaar yàlla bu Rabbul Ahad teral ñi barke Alxuraan barke mboolem saalixiin yaay fiddu sayxu Faatama yaa doon sayxu Moodu Ba ñun gëme woon Seex Moodu Ba du soppiku ci ji zamaan def naa la ndey Seex Moodu Ba lu man de xew ñoo gii na baax jox nan la xol yépp baax ñun yaa nu moom ci ji zamaan dëggul dëggal lañ xam ci yow kenn du la roy di des ginnaaw kenn mës la gis ci yow lu ñaaw macha allah leer na kurum. jox na la xol yaa ko moom jox na la ruux yaay borom ñaanal lu wér te ami ko buñ def ndigal yi fii zaman ñaanal lu am wér gu yaram ci barke Seex Gora Tamaam yàlla ak yeneen dara gërëm ngir jëmmi say xufaa sabaab Cheikh Abdoulaye de mooy borom Cheikh Modou Baax di wéy juróom na yàlla bul fiqu fanam bu yàgg wér ci zaman gis naa ni yaa di gaynde jaay ñëpp xam fi jur sa baay doo matte yow guddul ko mooy allahu bul ci ji la xam ci jëf ju baax yaay sëttu say ko faa sa baax sa ba soy ko ngóolu baax ñan nga yàgg fii zaman ñun doo nga yi ñëpp nga ñaan nga yàgg wér ci ji zaman ci barke Cheikh Abdoul Ahad guddalu fan dëggul dëgg lañ xam ci yow gis sa fan di noppi yow waaju la gëm wax nga ko yow luy tax mu raw ci ci zamaan mboolem ibaadatul rahmaan boole nga yëpp fii zamaan guddeeg bëccëg suba ci ngoon daraam du génn alxuraan ñëpp la gëm ngir yaa di seer moo du ci ñun yaa tax am am na loo tax yàlla na nga wér ëpp ñu fan. ci barke Seex Góora sama am ci lay dagaan ak yi sama amoon yàlla na ko am borom bu leen ci ji sama ci barke Seex Góora sama am da lay dagaan ak yi sama am yi amoon yàlla na ko am ci barke Seex Góora ba am. صل على سيد النبي نافرت خو تبلي بي نيان يالا داف تخرلو بي نيو ييب جوم شيخ مودو با صل على سيد النبي نافرت خو تبلي بي نيان يالا داف تخرلو بي نيو ييب جوم شيخ مودو با ديكو جوتارو غو باينده بوكو مو ودي biiri tànkam layur boppam ba ba mu yàgg tuuti noon ba di seeti yaakaar mu sotti kenn mu du bamba jël nañ ko gaynde bëggoon mu weti far yàlla seede gaynde ga bamba gaynde ga faru raam jébbal ko boppam ci biiri tànkam layur boppam ba ba mu yàgg tuuti noon ba di seeti yaakaar mu sotti kenn du bamba yëgal na la mu daj amul ku ko yi daj jën ya géej xam na nu Bamba keroog ba muy waaj di julli biir géej noon nan ko yaale mu gëm borom mu wàcc kabar jën ya di sikkar te ko yaay mbër yaa say ku mu wàcc kabar jën ya di sikkar te ko yaay mbër yaa say ku Bamba déglul ma wax la at yéen li man weer yéen li man ci biir tukkee mbas at yi juróom ñaar huit ak juróom ñaar ci weer la daan ci biir tukkeem ba te mësta xaddi te mësta fàtte te mësta weddi yàlla ak yeneen lu nam daa wax dëggam la koy wax mooy ki mësul rax yàlla ak yeneen amina amina mede ma amina ñu ñaan ci borom ko ñu bokk guddu fan wa salliyam ala nabi wa sallimi wa salliyam ala nabi wa sallimi waqti bi hajata kull muslimin yasir lahum bi alladhi tahsara fa kullu ma yasirtuhu tayassara يسر لنا المراد هب للمعالي والبرد وتيسير والكمالات يسر لنا المراد حب المعالى والفرد وتيسير والكمالات يا مالك الملك يا من جمع الخواتم ارحم جميع الورى يا سيدي المدعي يا مالك المكيا يا من جل عن خواتيم ارحم جميع الورى يا هدي بدا ثبتنا له على الايمان بذكرات الروح للجسماني وبعده سؤال والقيام الى دخولنا غدا دار السلام اديب ركبا ñoo di siara bu baax tey dund leen jégalu bu baax baax tey ñaan lépp luñ fi yëkkati mu néew ak bari suñu borom doole ñu ko nangul defulal ñu ko fi ci barke borom ngi di baaluwaat xàq te di leen baal tey jaajëfal waa groupe bii ngay xam ñoo ànd seq liggéey bi ku ci mel Serigne Moussa mi nga roy Serigne Serigne Moussa Seck di sama jëwriñ ci mbir mi ak Cheikh Ibra Talla ñu gën koo xam ci kalmat laa ilaaha illallah ak Serigne Modou mi nga xam ne jàngkatu xasida bu mag la ak Serigne Fallou ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen tuubal di bu baax a baax a baax tey ñaan nag ñi nga xam ne ñooy waa baax Bakhoum TV suñu borom taxawu leen ba fépp fu ngeen xam ne i ngeen jumtukaay bi àgg fa su la borom def ci lu kawe jot ci barke Cheikh Mor Fassé baaxum borom dafay baax di jaajëfal Cheikh Abdoul Ahad baaxum moom mi nga xam ne mooy sunu wasila di sunu yaakaar tey ëllëg ñoo ngi koy su sunu borom subhanahu wa taala yàlla defal ko gudd fan bu ànd ak wér jotaay bi yàgg lool te neex lool ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu ngi dogal ngant ñëpp di sàkku seen ñaan di wax ne xasida yii ak wolofal yii sunu yitte la sunu bëgg-bëgg la ñoo ngi sàkku nag ñëpp ñaanal lu ci ndax bëgg gi nekkagu fi waaye yéen a ko mi ngi fi kon ñoo ngi ciy jiital mbaaxu mel ak waa Ngembe ñëpp. teg ci doog yëpp rek ñu ñaanal في سر والجسم يكون مقتدى وهو الذي هاجر للمدينه بأمر ربي فزان دينا وسيلتي لمالك رفيع محمد خير الورى صفيا وآله وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم غدا اليوم يوم خيرك في دارين لا أهب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين هناية منك إلي لتعين فخنت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله إلا فاغفر لنا ما لم أجز وعدا ثم إليك لا إله إلا فاغفر لنا ما لم أجز وعدا فجد اليوم بخير من أمينا وخدني إلى اقتفاء سنني من بعد ما كانت ابتلاء عازية يدخلني في سرق الخنازير وكدت للأمداح والإدراء أزهد في تأليف والإقراء وفي تعلمي وفي تعليمها وفي استغلال بهدى مولودي فحلو ذا شكر وذا توسل بالمصطفى سفيه عين رسله وببنيه وبناته معا ليصرف سريعا المعاد يا بر يا غفور يا عليم إني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنامي أمر قوايا خليل المنامي يا خالقي يا كامل صفاتي لك استقيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبو لخيرك ركونا منك أروم اليوم أن أكون ممن أبو لخيرك ركونا وأن أتيك بناجي المستوى سنته البيداء يا من استفى وأن أتيك بناجي المستوى سنته البيداء يا من استفى يا خافر الذنوب يا غريب إني هبيد ربنا غريب يا خافر الذنوب يا غريب إني هبيد ربنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة داريني حقا يا سمي هب لي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الخزي في المقاسم ولسبديني بجاه القاسم والاكتفا ليل الهول بهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليوسف خير خلال طيبي وخير جيران بحق طيبي في وزائري وارحم بي الخلقه بحق تغييري ورقني ترقية خفية ببنته رقية صفية وقع دعايا أخربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير وسلاما بأمي كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي خد بجاه فاتمة صل على أبيهما والآلي وصحبي ولسجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من ضرورة حتى أكون سالكا خير الخم يا حمدلو يا مسلو يا من يؤمنو أنت مجيري هنا يا مؤمنون وابدا كل مؤمن يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال وابدا كن مؤمن يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال الحمد لله بالانتهاء فلم يعد الله في البهائي براحة المختار لا تتوى إلى فلا من بنكال يرضى للمزرع وجهت ما خزربا لخيرنا إبليس وهو انضربا هدمت باطلا بحق فزار ولإلهي تهز سقيدا بالله وبرسوله من خالف الحق والنجوم برأني الإله من ذكر ومن كل نفاق وسعادة دم برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مؤنبي هو الذي لم أرى خيره وراءه أراه في سيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي خال الكلام فرخني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقديم لو ختابي ومخل أكدارا ولزوانا وجعل خدارا أيدتنا على الهدى فخلقوا ولزوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد لي ثوابا هل الذي أورثني ثوابا هل الذي تربى كوني القديم له سلاما في البرية قديم لمن له كلية عباده خلدي ومن خالفني أبدا ملك الذي ليس له مباهي لخادم ما خاب أني المباهي ما جاني العليم والخبير وجاد للواسع والكبير فرغ لي جميع منابع أغلاني الملك وهو الرافع شاق مداره لمن خبرنا مدرتي من يقود منا من لك الملك والملك والمالك كل شيء له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوفد لي في رمضان جزاء أجر الذي ما عنده لا ينفض مثل وما تراون فدوا خدمة خير العالمين أغمدا عليه تسليما كريم الخمدا فرخت الخلبة ونسيت يبت وبمكاره لخير ثابت يدخل خير العالمين خلمي عليه تسليما مسيل الألم للمصار وجدت مالي غدا نخل بلا مدرة فانقادا هو سفي وهو سجاع بهمها ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه في الآل وصحب ومن والاه مها بلائي ومها أمراضي وبرداء تنغاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسيما حبيبي ربيع قتله كليتي في العلم وسر وخذي هذا ولني رفعت خدمتي الى الوسيله صلى عليه من ارى تبديلا رفعت خدمتي الى الماء سند ولسوانا ساخ كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الخبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمدا تسليم باخ لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمدا تسليم باخ لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمدا أبغى سلام الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي كريم سمدي يا الله يا غادر يا مقتدر يا من إلي جده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فترة فوق ثورومي جئت بذا الخسيد ساكرا لك في وقبل ليختفى لك زد قصيدتي في سكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكراما من ماذا فعل وكل ما أردو من كان فعل أتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرديت أنك بارك لي يا ربي في قروفي وخيرها وجدت بالمعروف ملتني بكونك الكريم ما قعد لي وتكريما أعطيتني ما القلب أنشأ كلما مدى من الدنيا ما خوت سلما كافأني مناله كفا أرد بما لخيري ساق كل من جغت أكرمني بقول ولا أغد ربي ولم يكن له كفانا ناجاني الله مكرم سواء تناجي به كفاني الكمم وجهني أكرم أنفع الكرم ودرري بخير ربي الزلم أدلوا كونتي خديدة خارقة لعادة مفيدة يا خير يا خير أحسن مثال على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل الكلام من على خير الغروف بما يفوق زلم المعروف لنعادم الخروف قليل الربع يا من كفاه ذا القرور والنبع ولي يا رمان يا رقيم يا خير ويا خير ناجاك عبدك القديم زازل مسلما على مزاسي الخلا الحمد لله بلا انتهاء ألم لأرض الله جلباي الحمد لله هل اللهي في إبليس بلا انتهاء لله في الأرضين والسماء كل ولي قد جاد بالنماء بارك لي في الغرقات والسكون ربي الذي قد خاد لي كنت يقول ربيت في البيع وفي المجاهدة وعند قسم الله كل سيدة كتابتي تدور تحت العرش بين الكرام عبدي في الغرف هرب إبليس بالانتهاء لغير ذاتي دعائي بسم الله ما نجيم di way ku baax boole di yéem jëfam yu baax jar na yéem man sopp naa waaju ko gëm bismillaahi maa ngi jéem di ku baax boole di yéem jëfam yu baax yi jar na yéem man sopp naa waaju ko gëm dese dinaa man mii di jéem di wax jaloore kii ma yéem man kii ma yéem ñëpp la yéem bu ngeen dégloo ma wax jikkoom dese dinaa man mii di jéem di wax jaloore kii ma yéem man kii ma yéem ñëpp la yéem bu ngeen dégloo ma wax turam bu ne kër sëriñam la jëriñoo fa ab añam moo tax ma jug di wax jëfam yal na ko yàlla dolli ndam ki may wayal boo ko xamul ma waxturam seex góor baax la maa ko gëm yàlla ak yeneen ñi ñëpp a gërëm jëmmam ja say xu baax seex góor a baax la ñëpp gëm moo tee ma jee ma wax mbiram bu doon du moom nu réer gëlëm te duñ giseeg sayxul xadiim déglul ma wax la ci mbiram loo mën a ngoy ba am ca ndam xamal ne kii waaju koo gëm foo mën a dem ñu jox la ndam leer gu bawoo fa sum boroom moo waraloon muy sàkku ndam guddeeg ba jëg leer ak lëndëm ba yàlla jox ko bépp ndam seex góor a baax leer gu bawoo fa sum boroom moo ko gëndoon moo tax mu dem am na ñu amoon am tiit ju moom di wax janaa ay fu mu jëm allahu buur bi kum gërëm allahu buur da koo gërëm mboolem rijaal yépp gërëm jëfam yi moom tanaw mbiram man sopp naa waaju ko gëm yof la bawoo di wut ngërëm bàyyi këram fàtte dërëm ba am ngërëm samp këram boole defar ak faji jaam jaar na kajoor ba yegg saam jàll fa bayti am fa ndam ndam la mu am feesu ndabam mu bàyyi ko fay wut ngërëm ku mës a dégg aw turam jaar na fa moom ba xam mbiram la ko ñoroon moo di ngërëm lu bàyyi ko fa sun boroom moo tee ma lim ña ko gërëm nga xam bu wér ne ay mbiram yemul ci wax daa jëf ba am lu bàyyi ko fa sun boroom moo tee ma lim ñi ko gërëm nga xam bu wér na ay mbiram yamul ci wax daa jëf ba am ndam lii mu am fa sun boroom wax nan nu ak jaaram ci maam cerno waxaat jaaram ci maam seex anta may boroom salaam seex góora mooy boroomi ndam wax nan nu ak jaaram ci maam seex anta may boroom salaam moo tax ba waa daaru salaam ñépp gërëm seex góora baax moo tax ba waa daaru salaam ñëpp gërëm seex góor a baax allahu buur da koo gërëm yàlla ak yeneen ñëpp a gërëm sayxul xadim da koo gërëm jaaraama sayxu góor a baax bismillahi maa ngi way ku baax te jublaay bëgg a way koo xam ne kii loo man di way du tax ndamam yu baaxee jeex gëm naa ni moom kenn du ko dab ci ay meloom kenn du ko dab ci ay jëfam day waaju jub ba noppi sax ci wax lu baax kàddoom ga nag fu mu mës a jib kenn du ci gis luñ mën a xeeb daa yéene woon jàmm ñépp jub te doon ñu sax ci jëf lu baax waaju fi gis ku mel ne moom jugal te wax ma ay meloom giñ naa ni kat ku mel ne moom kenn du ko gis ci ay larax noppee gore ak waxu yiw moo di jikkoom du jëf lu sew te noppi nag di wax lu yiw yàllaa ko fal ko ca kaw turam wa mooy Cheikh Modou Ba du wax ci wax ca kaw du wax lu ñaaw du jànni mag du gëdd ndaw ku teew fi moom luy taxaraw la lay digal kii mooy ku baax man kii waral ma juddi way boo ko xamul ma wax ko tey Cheikh du baax la naa ko way ngir jëm yi bàyyi ba faata baax ngir ay jëfam jar naa fésal te ay waxam mat naa béral meloom yi sax mat naa xamal gaañi xamul bañ xam bu baax du baddi nit ngir ñàkk yor du per nit ngir la yor loo mën a yor allahu buur lay xool ci yow Cheikh Modou Ba te loo ko jox mu jox ko buur bi yàlla yow nawet di noor du xas du jëw te moom du lor yàllaa ko ñor ak lu baax doom yi mu jur suuxat na leen ci rabbanaa ban cee safaan ndaw ak i mag góor ak jigéen xamal na leen luy jëf lu baax bëggul ko jëw bëggul ko mooy allahu buur te moom du mooy yàllaa ko def ku neex a roy ci yoonu say xofaasa baax xëy jëf ba dab ko ci lii mënta am na ngeen ko xam yàlla ak ñépp ñëpp a gërëm sa yi say du baax mës la ju yóog lu bur gërëm mës ju yóog ki way juram lii wér na leer na waa dëkkam kenn du ko dab seex moo du baax man lottu naa ci wér kemam ngir la mu saf moo dàq lem man lottu naa ci lim jëfam man naa seex moo du baax jagle gu rëy ga woon fa moom xañu ko woon ay dëkkandoom bokk ki doom ñoo yam fi moom bu wér a wér moo du baax lam daa digal ay taalubeem la daa digal ay dëkkandoom la daa digal sax bépp doom ngir ñu roy ci moom di am lu baax daa jëf lu baax ba am ngërëm daa sax ci muñ ba am ngërëm naqar la daa ra gedderam daa sax ci muñ seex moo du baax daa jëf lu baax ba am ngërëm daa sax ci muñ ba am ngërëm naqar la daa ra gedderam jaaraama sayxu du baax kii mësta xëy fàtte ñañam kii mësta xëy xatal wu jëm lu ñëw mu bokk kook ñañam tab la bu wér seex muudu baax kii mësta xëy fàtte ñañam kii mësta xëy xatal wu jëm lu ñëw mu bokk kook ñañam tab la bu wér seex du baax dongam bu muy yëg tawatam buy xëy di jël téléphone am di woo di laaj aw yaramam yëg la amoon seex muudu baax dongam bu muy yëg tawatam buy xëy di jël téléphone di woo di laaj aw yaramam yëg la amoon Cheikh Modou baax jëmm la woon ju ñëpp xam ci bëgg nit akub yaram fit ak la boole am am fulla lool Cheikh Modou Ba jëmm la woon ju ñëpp xam ci bëgg nit akub yaram fit ak la boole am am fulla lool Cheikh Modou Ba moo tee kañ ko wax mbiram ba ñëpp xam ko roy jëfam ñun bëgg am kër buñ fa suñ borom kenn du ko xañ Cheikh moo du baax moom jëf lu baax moo doon mbiram moom wax lu baax moo doon mbiram daaru salaam ñëpp gërëm jëfam yi sayxu moo du baax moom yar na yar na waa këram moom yiir na aar na waa këram jëfam yi mat na xëy na dem fekki na bàyyi ba faasa baax moom yar na yar na waa këram moom yiir na aar na waa këram jëfam yi mat na xëy na dem fekki na baay ba faasa baax ku jox la cër aw askanam ku jox la cër ay dëkkandoom moo tax demam gi tiis ñoñam ñépp ko joy moo du baax diirub dundam ci ak ayam cin mës la fande bii këram dundal na wuuf na ay rakam ba xëy na dem Cheikh du baax lu mas a bay ci ak dundam jébbal na ko ak sëriñam ndigal lu jub sëriñam mu roy ca say xufaasa baax daaru salaam xam nañ jëfam day taalibe ci say xoxaam Cheikh Amidou may na ko doom soxna ummee nga daaru baax lu mës a bay ci ak dundam jébbal na ko ab sëriñam ndigal lu jukkal sëriñam mu roy ca say ko faasa baax doomi ngërëm ju am ngërëm lum xës balaal yàlla gërëm moo tax ma koy dagaan ngërëm ngir jëmmi say ko faasa baax doomi ngërëm ju am ngërëm lum xës ba laal yàlla gërëm moo tax ma koy dagaan ngërëm ngir jëmmi sayxu faasa baax daaru salaam xam nañ jëfam day taalibe ci sayxu am cheikh amidun may na ko doom soxna umee nga daaru baax de seetinaa di fent way ngir bàkku waaju baax ji wéy ñépp a ko xam ci jëf ju rëy déglu ma tey ma wax jëfam du goddi nit ngir ñàkk a yor du bernité ngir la mu yor day jàpp ngir allahu buur ñëpp ko naw ci ak dundam ku yàlla buur bi jox ngërëm la moom bu wér ci ay ñañam daaru salaam ñëpp a gërëm jëmmam ji sayxu moodu baax danaa digal ay taalibeem jullee ko woor ba dem na yi li ne waral ay taalibeem ñoom ko ci gis muy wun ngërëm ku baax la moom ku am yitee du jiw du war du xaste du dam du war du yoote lu baax la daa digal ñoñam gaa ñi ko gis ci ab dundam ñi ëpp a nangu ab cëram mos lu juyoo ki wajuram ku soxla woon ci wun gërëm sa jëmm doy na làq waay sa barke doy na wéeru waay waaju la am du jaxle waay doy nga nu fépp yaa di maam doy nga nu maam yaa di baay doy nga nu baay te yaa di yaay yaa man ci nun maamam di jaay jaaraama say fu muudu baax la suuru maa ko tiit du nii la werdi nii waxantuma la jant yi jaaraama sayxu muudu baax ay kulu suuru maa ko tiit lamp du nit la weer di nit waxantuma la jant nit jaaraama sayxu muudu baax ay kulu suuru maa ko tiit lamp du nit la weer di nit waxantuma la jant nit jaaraama sayxu muudu baax baatin bu rëy ba mu moo waraloon su baati ku jox la ñëw jox la ñaan du gàtt ni sayxu muudu baax yàlla fal fa diiwaan wàccee ko na ci ji zaman moy fek di fal kuy sàkku ñaan mu fa ci mbir Cheikh Modou Ba jaaraama sayxul abdulaat ñun wi nga aw def ko jihaad sant la warna bu wér ci ñun yaay doomi sayxu Modou Ba jaaraama Cheikh abdul Ahad ñun wi nga aw def ko jihaad yalla ko rabbul ahad teral bu wér Cheikh Abdoul Ahad jaaraama Cheikh Abdoul Ahad daaw def ko jihaad yàlla la buur rabbul ahad teral ci barke alxuraan ku way doom de way nga baay ku way baay de doom de jooy nit ñaa ngi naa dooma di baay moo tax ma way la fii zamaan yàlla jotaay bi yàggu lool ci barke xaadimu rasul wala ci wér gu yaatu lool ak barke mboolem saalixiin yaay sirtu sayxu saa sabaax yaa doon Seexu Moodu Ba nun gëme woon Seex Moodu Ba du soppiku ci ji zamaan def na la Seex Moodu Ba lu man de xew ñu ngi na baax jox nan la xol yépp baax ñun yaa nu moom ci ji zamaan dëggoog dëggal lañ xam ci yow kenn du la roy di des ginnaaw kenn mës na gis ci yow ñaaw macha allahu leer na kun jox nan la xol ñaanal nu wér te ko buñ jëf ndigal yi fii zaman ñaanal nu aw yaram ci barke Seex Góora Zaman yàlla geneen dara gërëm ngir jëmmi say baax Seex Abdul dema borom Seex Moodu baax di wéyjuram na yàlla bu fekku fanam mu yàgg wér ci ji zaman naa yaa di gaynde Njaay bu ñëpp xam fikir sa baay doo màtt yow kudul ko mooy allahu bur ci ji zaman ñëpp la xam ci jëf yu baax yaay surtout say ko faa baax sa ba soy ko muur baax ñaan nga yàgg fii zaman ñun dong yi ñëpp nga nga yàgg wér ci ji zaman ci barke téere alxuraan Cheikh Abdoul Ahad bu dellu fan dëggul dëggal lañ xam ci yow doo gis safaan di noppi yow waaju la gëm wax nga ko yow luy tax mu raw ci ji zamaan mboolem ibaadatul rahmaan boole nga yëpp fii zamaan guddeeg bëccëg subaa ki ngoon daraam du génn alxuraan ñëpp la gëm ngir yaa di seer moo du ci ñun yaa tax nu féer yow ku la am am na lu baax yàlla nga wér te gudd fan ci barke Seex Gora Zamaan ci lay dëggaan ya ci sama am li nga na ko am borom bu leen di zamaan ci barke Seex Góora sama am da lay dëggaan ak ci sama am yi amoon na ko ci barke Seex Góora ba salli ala sayyidina nabi naa far taxaw ci bindi bi ñaan yàlla def ñun ñëpp gëm Seex Moodu naafar taxaw ci bindi bi ñaan yàlla def ci xaru bi ñun ñëpp gëm Seex Moodu baax jikko ju taaru nga boote daaru yaa sirru sirru Seex baaxum am ngay karaama am ngay maqaama nee leen jaraama Cheikh Ibra baaxum yaa am jaloore te am manoore kaa nga gisoon re nan la baaxum yaa am jaloore te am manoore kaa nga gisoore xam nan la baaxum jaaraama Seexu Ibra baax keroog fa daaru koo seen mu muuru rankoy yey tuuru mu naan la fu ñu jëm ndax ko nu soppoon su bëggee tee naan kaw sara lay naan Cheikh Ibra baaxum ajama yombul sawara neexul yow lañ fa jiital Cheikh Ibra baaxum yow mi wallunu bul dem bàyyi nu foo jëm Cheikh Ibra baaxum ajama yombul sawara neexul yow lan fa jiital Cheikh Ibra baaxum zarzat dayra li xuta mayra fal tak fi jawra li man yuraayi an xisyaali min adalaali wa bil xayaali xali salaali xili ataaba xudlil kitaaba waqbal mataaba yaa zatiraayi yaa xayra rabbi xayri murabbi tayabta qalbi بعد ابتدائي يا خير ربي خير مربي تيبت قلبي بعد ابتدائي صل وسلم على المتمم وكل عازم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل عازم بلا انتهاء احمد الخديم jël nañ ko gaynde bëggoon mu weddi far yàlla sédde gaynde ga Bamba gaynde ga Faram jébbal ko boppam ci tànkam layur boppam ba ba yàgg tuuti noon ba di seeti yaakaar mu sotti kenn du bamba jël nan ko gaynde bëggoon mu weddi far yàlla sédde gaynde ga bamba gaynde ga farraam jébbal ko boppam ci tànkam layur boppam ba ba yàgg tuuti noon ba di seeti yaakaar mu sotti kenn du bamba yëgal na la mu daj amul ku koy daj jën ya fa biir géej xam na nu Bamba keroog ba muy waaj di julli biir géej noon nan ko yaaleej mu gëm borom ba mu wàcc kabar jën ya di sikkar te ko yaay mbër yaa Seyxu Bamba mu wàcc kabar jën ya di sikkar te ko yaay mbër yaa Seyxu Bamba déglul ma wax la at ya limal weer ya limal ca biir tukkeem ba juróom ñaar wi teg juróom ñaar ci la daan wër ca biir tukkeem ba te mës a xaddi te mës a fadde te mës a weddi yàlla yeneen ba lu noon ba daa wax dëggam la koy wax mooy ki mësul rax yàlla yeneen ba amina amina mi ma amina ñu ñaan ci borom kun ñu bokk gudd fan wasalliyan ala nabi wasalimi wasalliyan ala nabi wasalimi waxti bihi xaajata kulla muslimi yasir lahum bihi nasi tahsara fa kullu ma yasirtuhu tayasara يسر لنا المراد حب للمعالى والفرح والتيسير والكمال يسر لنا المراد حب المعالى والفخر والتيسير والكمال يا مالك الملك يا من جل الخلق ارحم جميع الورى يا هادي المنى يا مالك الملك يا من جل الخلق ارحم جميع الورى يا هادي المنى صبتنا له من الايمان عند فراق الروح للجسمان وبعده سؤال والخيال إلى دخولنا غدا دار السلام أبي بوكبا ñoo ngi leen di siyaare bu baax tey jub di leen génn bu baax a baax ñaan lépp luñ fi yëkkati mu néew ko bari suñu borom doole ñu ko nangul te fu ñu ko làqal na ko fu yàqu addu ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu ngi jégluwaat ñëpp di baaluwaat xaq ñëpp te di leen baal tey jaajëfal waa bii nga xam ñoo ànd seq liggéey bi ku ci mel ne Serigne Moussa Gueye moom mi nga xam ne mooy roy Serigne Moussa Seck di sama jëwriñ ci mbir bi Cheikh Ibra Tall ñu gën koo xam ci kalimat laa ilaha illallah ak Serigne Modou mi nga xam ne jànkatu xasida bu mag la ak Serigne Fallou ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen tuubal di leen jégalu bu baax a baax a baax tey ñaan nag mi nga xam ne ñooy waa Daaru Baaxum TV suñu borom taxawu leen ba fépp fu ngeen xam ne bëgg ngeen jumtukaay bi àgg fa suñu borom def ci lu kawe jot ci barkeb Cheikh Mor Fassal baaxum borom léppay baax di jaajëfal Cheikh Abdoul Ahad Bakhoum moom mi nga xam ne mooy sunu wasila di sunu yaakaar tey ëllëg ñoo ngi koy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu defal ko gudd fan bu ànd ak wér jotaay bi yàgg lool te neex lool ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu ngi dogal ngant ñëpp di sàkku seen ñaan di wax ne xasida yi ak wolofal yi sunu yitte la sunu bëgg-bëgg la ñoo ngi sàkku nag ñëpp ñaanal ñu ci ndax bëgg gi nekkagu fi waaye yéene ji mi ngi fi kon ñu ngi ciy jiital mbaaxu mel ni ak waa ngeen na ñëpp tekki doom yëpp nag ñu ñaanal ñu suñu borom gàttal ñu ci barke borom Tuuba Xaadimu Rasuul wasalaamaaleykum wa そう